jërëjëf mbokki internet bpactu.com ñoo ngi leen di nuyu baax a baax di leen jaajëfal te fas yéene ñëwaat ak yéen ci seen xibaaru analyse ba tax na nag teg ji ci xëdu njëkk yi dañ koy daal di ubbee rek ak lii nii di génn ko àdduna bébé Anta Ndiaye tolloon ci juróom-ñaari at ñeneen ñi naan juróom-ñetti at li ko waral nak kenn xamagu ko waaye ñu ci bari defoon nañu jugement te xamuñu kan moo ko faat ak lan moo waral mu daal di koy faat en li wéte mooy ginnaaw bu motul boobu amee suñu yoon yàlla tey jii ah, takk der yi baissé wuñu les bras benn yoon ñoo ngi doon accélérer la cadence ngir que ku def ah, xeetu ñaawteef boobee ñu daal di koy ah, teg loxo ca na mu gën a gaawee ba tax na suñu borom daal na kuy ñiit mu nekk nit boo xamante ni ku leen jege woon la lool nit boo xamante ni xamoon nañ ko lool te ràññee ko d'après li journal Libération daal di xëy bind ci xëtam gu njëkk tey jii faat bakkanu bébé Anta Ndiaye moom mi ngi tudd Mamadou Ba Mamadou Ba nit ñi gën koo xam ci turu Mama mu toll ci 17 ans dong moom Mama nag moom moom faat bakkan bi ci anam yoo xamante ni doy na waar loolu waaye naka la ñuy def ba daal di remonté ba yegsi ci Mama moomee lépp moo ngi tàmbalee ci seen benn dëkkandoo boo xamante ni seen mbokk la nekk tante ci Anta Ndiaye bébé ba mu yoroo dafa koy daal di koy solal mbaxana waaye heure bi ñuy faat Anta Ndiaye ci loxol benn cousinu Anta Ndiaye ñu koy wax mbuup mbuub moomee moo yoroon Anta Ndiaye yor tamit bébé bi demoon di jënd këriñ waaye ba mu jënd këriñ rek kii nii di Mamadou ba mu fàtt bakkanu Anta Ndiaye da ko woo téléphone ni ko dama doon génn ak màgget mais màgget dama bàyyi bëggoon lekk nga ñëw ma expliquer lépp nga dem waxtaan ak moom ba mu dellu si waat ak man ci jàmm ak salaam pour rappel màgget moomee ak Anta Ndiaye ñaar ay cousine direct lañu naka la dem ànd ak Anta Ndiaye ak bébé ba kii di ko expliquer relation ak Maguette Lekk foofee la ko Anta doon fixé sans pour autant sax mu comprendre li mu doon wax mer ba mu àndaloon moo waral nag mu daal di tourné yam ci bébé Anta Ndiaye daal di koy xocc ba mu sedd guy sur le sang moom mbupp mu daal di daw ba muy daw wàcc fa bone bi bébé bi takkoon bone boobee nag moo waral police scientifique bi daal di remonté dem ko kër Anta Ndiaye di leen laaj ba xam bébé Anta moo takkoon bone bi ci bés boobu waaye dañ ko daal di weddi ba mu set wecci nee nañ ko amul sax bone bay am bone bu ni mel dëkkandoo bi jur bébé ba daal di def déclaration ni lii nii bébé moom moo ko moom te moom moo ko sololoon bés boobee waaye heure bi doon seet Anta Ndiaye mu ngi woon ci loxol mboob moom nag naka lañ ko gëta mu daal di def révélation yi ci war yëpp expliquer ana nan la def ba dem ci bâtiment boobee tasante fa ak Mamadou Ba ak tamit nan la def ba daal di faat bakkanu ki nii di Anta Ndiaye ragal moo tax mu daal di daw ak tiit ko dénoncé taxul nag takk deri bàyyi ko benn yoon daal di koy mettre en garde à vue na enquête bi Mamadou Ba bañ ko tegee loxo ba suñu joon yàlla tey ji yëkkatiwul euh, moo daal di koy euh, jumale euh, ci meurtre boobee leen rek la firndeel ni moom ak Maguette a doon sekk relation amoureuse Maguette daal di koy bàyyi waaye ba suñu yoon yàlla tey ji waxul moom moo rey waxul tamit reyul te wóor mooy lu xew ci bâtiment bu yeggul boobee bari na waaye une partie de l'histoire donc la ñu xamagum ak jamono ji nag ñu ci bari ñoo ngi dootul baaraamu tuuma mbópp ndax jàpp nañ ni boo àndee as gone ñu daal di faat bakkanam li wér te wóor mooy nga daal di daw wuti ndimbal ndax tey ki faat bakkanam mënoon naa daw ba faaw te kenn du ko gis ana lan moo waral mu daal di dem toog boole takk organisé ak xale ba lan la gis ci bërëb boobee ba tax mu figé di leen xool ba mu jaral leen ñu daal di faat bakkanam ci anam yu tout cas doy na waar lool alors que au début ñu ci bari defoon nañu jugement que élection législative yu jub moo waral sacrifice wu xale yi daal di bari ndax dafa tombe woon ak ci veille bi ca diwaanu ci kaay benn dëkk ñaari gaar ab benn gone ku góor bu ñu woowee lamin ay dara moom tamit dañ ko jàppoon yóbbu ko ci benn batiment naroon a fàtt bakkanam nit ñi jàpp ni euh, lépp ay euh, sacrifice la tey nag takk der daal di nañuy firndeel lépp ni euh, li nga xamante ni moo waram crime ci réew mi lu nekk mën na koo waral waaye Euh, nit ñi dañuy yàkkamti rek di wax euh, naka sudul noonu wala ñuy teel a def jugement ak lu ci mënti am moom euh, jamono ji bu kii nii di Anta Ndiaye feeñ na waaye ki naroon a def bosu Mamadou Lamine Aydara moom ba suñu yoon yàlla teg ji ko bët en ñuy amal procès wu Mamadou Ba ak lépp loo xamante ni dina ruusandiwaat comme xibaar ci motro Anta Ndiaye boobee dañ leen naan mbokk ñoo leen di la jox leen dig daje ba beneen yoon incha allah ci yeneen i xibaar